Je suis le capitaine Erasmus Sambou, commandant la 12e compagnie d'incendie et de secours et chef de détachement euh, pour la couverture de l'appel des LAN. Euh, la brigade nationale des sapeurs-pompiers, à travers le groupement d'incendie et de secours numéro 1, euh, s'est encore engagée cette année à assurer la couverture sécuritaire de l'appel Sédina Limamoulaye. Vu son caractère religieux, et le nombre important de personnes que la cérémonie regroupe, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a pris toutes les dispositions pour assurer la sécurité des personnes et la sauvegarde de leurs biens. Et vous voyez que nous avons euh, trois sites à couvrir. Il y a le site de Cambérène, il y a le site de Yoff et le site d'Ungor. Mais présentement, Nous avons mis l'effort sur le site de Cambérène parce que c'est là où euh, plusieurs fidèles euh, sont regroupés ce matin. L'après-midi, nous allons mettre l'accent sur euh, le site euh, d'Ungor. Donc en termes de personnel, nous avons engagé 150 gradés et sapeurs. Et en termes euh, de matériel, en termes de moyens matériels, nous avons engagé 4 ambulances, dont 2 médicalisées, quatre fourgons pompe-tonnes, c'est-à-dire les engins qui éteignent les incendies, 4 véhicules d'intervention euh, légers. Et je précise que nous avons engagé également euh, les, les GREP, c'est-à-dire les spécialistes en intervention subaquatique, parce que vous l'avez si bien constaté, les sites euh, sont pour la plupart en bordure de mer. Donc là, nous avons engagé ces éléments-là pour qu'ils puissent intervenir le plus rapidement possible euh, sur le plan d'eau. pour ce qui concerne les, les, les, les, sites qui abritent les fidèles, là, nous avons des éléments à l'intérieur. On les a divisés en, en groupes hein, pour qu'ils puissent euh, être au plus près possible euh, des, des fidèles. Et vous voyez qu'il y a aussi des, des, postes médicaux avancés. Ce sont ces postes qui accueillent les, malades ou bien euh, ceux qui présentent euh, des, des blessures. Et ce sont des postes qui sont destinés à, comment dirais-je, à prendre en charge rapidement un cas. Si ce cas ne peut pas être traité ici, on évacue directement au niveau des structures sanitaires. Et à l'intérieur de ces postes, nous avons des infirmiers et des médecins. waaw bisimilah waaw ah, Moussa ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal bu baax ah, di la ziar si bés bi lool ah, tey la ñaata. 139e appel ñu la si ziar bu baax ah di rafetlu bi lool ana yan kàddu ngay sànni si bés bi ah ñun rek ñu ngi nii rek si mbégte mi waaw di santaat yàlla bu baax lay mi sakartum la azidannakum in la azabi la shadid suñu borom nee na koo koy sant mu lay gën a delloo di la ko gën a dolli kon kon ndëg ñun ndëg ñun jaami si sant borom bi la ñuy la ko insi wi ñu si 139e appel waaw mu doon suñu xalifa di sëñ Ablaye al yadaxullahu wa nasaraw yàlla suñu borom gën ko fi bàyyi mu yàgga fi gis nga lii yëpp boo xooloo mbooloo mi yëpp sëñ Ablaye la ndaxte appel sëñ Ablaye moo ko gën tas ba Seydi caw moo njëkk a féete centenaire Seydina Limaamu fii mais sëñ Ablaye moo taawi woote bi taawu ka yóbbu ko dëkk yu ne ba tax na ñëpp xam nañ kan mooy Seydina Limaamu ndaxte laayeen bu njëkkoon toloon nañ fi treize personnes treize personnes toloon nañ ko fi mais xoolal léegi mbooloo mi day gën a yokku te ndaxte tànki kanam la ñuy santaat yàlla bu baax di santaat yàlla bu baax ndaxte appel bi ñu ngi koy si jàmm salaam waaw ndax comme ni ñu gën a defee rek te dañuy ñaan yàlla ren mu gën a yokku te ah commencé nañ si bisimilah rahmaani rahim yàlla ñu génnee ko si alhamdulilah rabbi alamin waaw Moussa dëgg la duñ la bàyyigul noonu doonte dañ ne di Cambérène la incha ngoon gi kon ngor la ah ñu ñëw rawatina tey fi ñu teew fii si Cambérène nga gis tey mbooloo macha allah ku fi ñëw rek di nga gis sa yaram daw na daal maanaam an tey bés bi lan la def tey ak mbooloo mi ngi gis tey waaw tey moom bés bi moom dañu gën a dañu gën a kontaan rek ñu daan kontaane ren la gën a yokku sax kontaan te mi na te koo xamante ne yàlla dafa dogal xam nga ñu naan kii est-ce que moom la wala du moom chaque année suñu borom di la dëggal ndaxte man damay faral di wax ne bés bu jot rek suñu borom mu ngi dëggal Seydina Limaamu ndaxte suñu borom da ko yónni ba waa dëkk ba réere ko la moo tax mu nga feeñ ci dër bu ñuul a nga loolu dafa yéeme ndaxte bu feeñoon si arab arab yi dañ koy rey ndaxte xam nañ ne deret bu ju weex amaatoo beneen yoon daf ko war a ñëw mais suñu borom dëkk moo ko mooñ boolekaas yonente yàlla instant mii ki xamante ne mooy kat ko yéegoon ndaxte moom bu wàccul woon kon lislaam dañ naan dafa faussé ndaxte suñu borom ay waxam warul faussé moo tax tey fii rek nga mën a ubbee ki xamante ne moo jullise woon baayam moo tax kenn du ubbee feneen si kër limaam te doo jiital seen Isaa moom ngay ubbi ba pare soo a dem ci Seydina Limaamu moo tax ñuy ubbee si Seydina Isa dem ngor fa Baay Laay feeñoon ba pare ñu jànjal leen waxaat Baay Laay nan la defoon ba ñëw ba pare nag lendemain bi ñu àndax imaam Maxtaar mu war a def yor-yor bi xamante ne moom la Seydina Limaamu woote woon tombé woon naaw bésu dimanche si 11 kon nag tey jii nii nii nag mooy bës bi dañ ko war a woor démb dañ ko woor ak barke démb ndaxte trois fan yooyu noonu la moom la Seydina Limaamu toogoon avant muy woote di woor. mooy keroog bag bu yaayam génnee àddina moom Coumba Ndoye mu toog trois jours lekkul naanul lekkul naanul moom Seydina Limaamu sallallahu alayhi wa sallam si lendemain bi ne si la taxaw sa yor-yor ba muy suba te yàlla ñu si yàlla yóbbu ndaxte loolu mooy appel muy yor-yor ñëpp ko war a teewee ndaxte loolu mooy répondre à l' appel de Dieu moo tax ñu ne la ajiboo daayallaahi yaa macharal insi wal jinni inni rasulullahi ilaykum mu ne nit a jinna laa woo si lan mu ne ngeen ñëw jaamu rabbana bu fekkoon ne dañ ñëw nañ nañ jaamu. boppam kenn du ko wuyu mais dana ñëw leen ñu jaamu Allahu mii di buur moo tax keroog ba mu nelawee moom Seydi dane ku dool ku xamante ne su ma baay moo la taxoon a jaamu ne la wër ne suma ma baay jóge na fi na nga dem solaawuñu la mais képp koo xamante ne Seydina Limaamu moo la fi kii yàlla moo la fi indi yàlla moo la fi indi ne la wër na yàlla du fi mas a jug nañ taxaw gën a saxal suñu borom gën nga yéeki si lépp Euh, bi ñu rafetloo kàddu yi fi jóg nii euh, rawatina tey ñu ngi fii ci euh, Cambérène defe naa incha allah ngoon ngor la gis nañ tamit dali tamit aussi ñu si mel ni waa Cambérène ak ñëpp ñëw nañ ñu si mel ni tamit ku ne daal wuyu si nga si woote Seydina Limaamu bi waa Casamance defe naa ñëw nañ ak waa gàmbi tey bi nga ñëwee tey fii ci Cambérène mbooloo mi nga gis nii ñëpp macha allah ñu nekk fi ana tey bi nga ñëwee lan nga yëg sa yaram. alhamdulilah mbégte laa àndal sant yàlla julli ci Baay Laay parce que lu dul dëgg du yàgg defe naa mbooloo mi boo ko xoolee da ngay xam ne li naa Limaam alayhi salaam woote dëgg kese ci ne barki Maam Baay Laay mbégte laa àndal bu baax a baax barki Seydina Limaam di ñaan nag bépp aajo bu fi waay indi ci barki Maam Baay Laay ci barki Maam Seydi ci barki Sérif Abdoulah yal na ko saa borom faj ci barkib Seydina Limaam alayhi salaam yalla may ñëpp jàmm ak salaam woote bi nag yàlla bu mu doon suñu mujjantalu oote yal ñu fi nekk di fekkee di ko fekkee ay ati ati ati ati at ci barki Maam Baay Laay mbooloo mi masàllaa boo gisee nga xam ne lii yëpp alhamdulilahi rabil alamin ñu ngi sant yàlla bu baax di julliwaat Seydina Limaamu ci gëm gi mu gëm Maam Baay Laay démb ak tey di wax ne Seydina Limaamu mooy Muhammadu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Baay Laay mooy démb mooy tey billahi wallahi tallaahi Seydina Limaamu mii mooy démb mooy tey te moom mooy mu xamadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñun nag duñ ko caaxaane duñ ko kafe duñ ko fawee bàyyi laay mooy démb mooy tey moo nekk suñu biir xol moom la ñuy doxee moom lañuy ñuy waxee fépp fu ñu munti dem dañuy tiitaroo Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam alhamdulilahi bi ma yàlla boolee ci xeetu Seydina Limaamu alayhi salaam ñu ngi sant yàlla bu baax di julli Seydina Limaamu alayhi salaam. ñu leen di Euh, ñu ngi fii ci Cambérène euh, Adja Roxela lañ gis fii nii ah defe naa daal moom euh, bëtu mbégte la fi wane tey daal ah, tey di woote ba si woote bi nag Seydina Limaamu Laay woote bi defe naa mu ngi toll ci cent trente neuvième édition bisimilah ana tey lan nga yëg soxna Roxe bisimilah. auzu billaahi mina yàlla maa ngi julli ci yonante bi muy Seydina Limaamu alayhi salaatu wassalaam maa ngi gërëm sama waa daayira di gërëm ñëpp waaw tey moom bésu mbégte la bésu mbégte la parce que ku ne appel rek xam ne mbégte nga siy jële ñun dañ juddu fekk ko fi màgg si tamit euh, bu ñu waxee Cambérène tamit muy jour premier jour appel bi loolu dafa neex gis nga fii nii ni mu feesee dal macha allah. suñu gan yi ñu ngi jógee ba bi ñu jógee ba Casamance fu nekk la ñuy jógee xam nga nga xam ne daal yëf yi daal léegi dafa yaatu dafa yaatu nekkatul laaya ni kese sax mais dafa yaatu daal macha allah li ma yëg daal mbégte la ak kontaan bu rëy a rëy di ñaan ñu koy teewe at yu bëree bëree bëri tamit macha allah. macha allah ñu ñëw tamit gis mbooloo mi takk lool ku nekk bàyyi ko dëkk bu ne ñëw wuy si woote bi woote Seydina Limamou Laye alayhi salaatu wa salaam ana tey bi nga ñëwee gis mbooloo mi takku lool ana tey lan nga yëg sa xol tey. waa tey moom sama xol dafa sedd sama xol dafa sedd lool sax macha allah parce que mbooloo mi daan na takku mais gis nga mbooloo mi dafa gën a takku te day gën a yaatu sax day gën a yaatu fi ma toog nii léegi laa naan sama xarit bi yaa ngi gis nit ñi euh, jàmmalaay dafa fees ba ñu ngi toog ba si biti ba si biti boo taxawee da ngay seen nit ñi nga xam ne affaire yi dafa gën a yaatu daal dafa gën a yaatu te dañu yàlla mu gën a jëm kanam. Cambérène fii instant bi nii dafa xat mais bu gënoon yaatu ngay xam ne ne fii nii day fees del macha allah gan yi tamit fu nekk lañuy jóge fu ne imagine toi ñi ñu ngi jógee ba Gambie bi ñu dalal sa ñu ngi jógee ba Gambie am na ñu jógee ba Casamance dëkk bu nekk la ñuy jóge Tëngéej fu nekk daal dëkk yu gën a sori la ñuy jóge di ñëw pour appel se oote bi moo leen indi appel bi nit ñi dañuy yàkkamti sax mu ñëw xam nga pour dalal gan yi ñun dañuy yàkkamti gan yi di ñëw bu ñuy ñibbi dañ ñuy metti parce que tellement que duñ bëgg sax ñu dem liggéey affaire yi dafa neex xam nga waxtaan kafre loolu yëpp daal ak ñëw xam diine gi aussi ñëw tamit xam diine gi loolu tamit dafa neex daal macha allah affaire yi daal yaatu na euh, neex na aussi macha allah neex na trop macha allah daal. dëgg la rawatina tey bii nga ñëwee gis euh, mboolem takku la macha allah. mooy li nga wax léegi sa biir wax nga gis délégation Gambie macha allah waa Casamance tey ñëw bàyyi seen yitte yëpp tey ñëw si bët si woote bi bi leen gisee ñoom ana la ngay yow. waaw bi ma leen gisee dama kontaan dama kontaan parce que démb dañu toog di leen xaar biñ guddeewee tamit xaw nañ am lu ñu metti trop parce que dañ xaw a guddee buñ bu buñ sañoon euh, dañuy teel a ñëw dañuy teel a ñëw parce que ñun dañuy yàkkamti gan yi ñëw dañuy yàkkamti gan yi ñëw Euh, amuñu dara lu appel ñun laayeen appel lañ am nee naa ñun appel mooy suñu tabaski mooy suñu korité mooy suñu événement appel lañ am dañ ko yàkkamti te dañuy yàkkamti suñu gan yi ñëw bañ dalal leen ñun ñii jóge nañ fi dem bi seeti leen mais ñoom dañu yàkkamti woon ñu ñëw kon tamit ñoom bu ñu leen waree dalal ñun ñi dañ koy yàkkamti trop sax macha allah dëkk bu nekk du ay waa Gàmbi rek ak ay waa Casamance rek lañ dalal déedéet bëri na bëri na trop ñi ñuy dalal bëri na mais ku lim juum bëri na trop parce que ku ñëw fële suñu daal da ngay gis mu fees del da ngay gis mu fees del ay waa Ndar fu nekk daal la nit di jógee fu nekk la nit di jógee mais dañuy ñaan yàlla affaire yi gën a jëm kanam xéewal yi yokk waaw macha allah daal gërëm tamit waa daayira bi ñu baax la ñoom ñëpp euh, di gërëm tamit suñu président Baye Seydi moom tamit daal macha allah daal macha allah yal na yàlla yokk xéewal